mi ngi wax salaamaaleykum ami internaute Thiès Info salaamaaleykum mbokk yi ñuy teewlu ñu ngi leen di béggee waaye itam di kontaan ci yéen di leen siyaar saa su nekk di dox ci li leen neex mbokk yi ami internaute seen mbokk seen xarit Fall Damel def comme ni mu daan def rek doxantu dugg ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar saa su nekk nee naa leen eh, kamay eh, seeti di ko dalal daanaka mën nañ koy woowee gaar ndax na eh, moo loolu waral sabab Thiès kaay nekk benn dëkk ñetti gaar ndax Baye mii ma toogal waxuma gaar waaye weesu na gaar muy ndaanaan ku lu faat lu ndaanaan nekk koo xamante ni itam gëm na li muy def mën ko waaye itam bëgg ko boobaak léegi ne nag mbokk yi euh, euh, ñu toog lu yàgg gisuñu Baye Fall euh, donte am na ay wax yu jotoon a am. ci digganteem ak yenn yi ak mbir yoo xamante ni am na lu ko daloon ak yooyu yëpp tey jii mbokk yi lépp dina leen leer dina leen leer euh, fa mu nekkoon ak euh, li nga xamante ne moo ko taxana noppi ak itam euh, mboole seen question yi nga xamante ne noppi nañ pour poser ko ko def ak moom waxtaan sama waa ji dina ko leeral bu baax a baax a baax duñ def leen lu dul bàyyi ko mu nuyoo ak ami internet Thiès Info Serigne Baye Fall. <laughs> waaw maa ngi wax salaamaaleykum di nuyu waa Thiès mm-hmm. bu baax di la yow Fall. di nuyu Sénégal yëpp di bëggee ñëpp euh, di sant yàlla bu baax nag maa ngi nii maa ngi nii la wax maa ngi nii <laughs> maa ngi nii rek képp ku ko wax mooy ko ne ana diw <laughs> mu ni maa ngi nii waaw Baye Fall ana ana nga fan nga nekkoon fan nga nekkoon boobaak néegi nii ndax tekka dama am tawat dama feebar am problème mu bët loolu laa nekkoon di ko faj nag xam nga faju ak i wax mënoo koo boole man mënuma boole nekk di fajo ba pare boole ko ak ay wax euh, tane ma tax di wax boo tanewuloon du ma wax ci caméra ba ma jaaxlee euh, affaire bi awma ci benn technique dama wowoon taxawoon ci internet bi wax yàlla dogal ma nekk ci faj mi bi ma demee ba tane nag moo tax bi ma woowee mën nga wax maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi tane bu baax maanaam bi nga defee sa cri euh, du cœur boobu noonu wax yëkkati li nga xamante ni moom moo la naqari euh, am na ñu jóg ngir jàpp ci. faj la ndax ku ni ku ni ku ni tane ni faju faj mi nu mu demee. jàpp nañ ci bu baax Sénégal yëpp maa ngi leen ci sant leen ci gërëm Fall dëgg yàlla euh, jox nañ ma xaalis jàppale nañ ma ci faj nañ ma jëndal nañ ma ay garab yóbbu nañ ma ma tukki tukkiwaat. tukki naa ci ñaari yoon faju naa ci wéeru ma nag waaye maa ngi tane xam nga wéeru moom bu ma ko defoon wéer yi ma takk du ko takk waaw waaye maa ngi tane bu baax wax dëgg yàlla ba may taxaw di wax daal jaaxle waaye fi mu ne nii wax dëgg yàlla sama xel dal na ndax euh, faju naa ci maa ngi jël garab yi maa ngi def traitement bi maa ngi maa sant yàlla bu baax di wax ñëpp ñëpp ñëpp ñi ma jàppale woon xam nga ku lim doo juum sax da nga dul matal waaye maa ngi sant képp koo xamante ne nag taxawoon nga ci ni da nga may jàppale ci média beeg liveur yeeg ku ci mel ni Adamo Sakon euh, Adamo wax na ci Sakono Stress ak ak euh, ruubeeg ñi ci des xam xamuma leen képp koo xamante ne woon nga sa làmmiñ rek waxaloon ma lu baax rek ba ci yow mii dégg na gis naa la nga defoon euh, vidéo bi nga defoon euh, képp koo xam ne taxawoon nga wax ci rek wala nga yëkkati woon sa alal jox ma rek maa ngi la ciy sant di la gërëm rawatina soq mi nga xamante ne dafa bàyyi woon entrainement am bàyyi ay yitteem bàyyi léppam bàyyi soxnaam ñëw sësuma wéeruma ma jàppale ba nga xamante ne que fi agsi na fii kon wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. Euh, tey jii bu ñu doon wax euh, ñi nga xamante ni mënut a ñàkk nga tudd leen ni diw ak diw ñoo ma faj. kii moom njëkk a yóbbu ma tukki euh, Arona ja waaw Arona ja moom a njëkk yóbbu jëlal ma jël ma en charge yóbbu ma ma dugg ci abiyon yi dem jëlal ma hôtel def ci man li war lépp jëlal ma ay garab faj ma wéruma nag waaye maa ngi ak euh, kooku buggul ko sax ku tudd turam waaw ki nga xamante ni que moom a mujj jàppale nii moom bëggul sax ku tudd turam mais maa ngi gërëm bu baax waa association Espérance waaw association Espérance maa ngi leen di gërëm bu baax maa ngi gërëm bu baax madame Diaz ndax problème bi dafa demoon bëgg romb problème mu bët rek parce que bu ma demee man ba jaay suma alal yépp di ko faje sama bët yi wérul euh, yëf yi da doon dem bay bëgg a romb dimension wu ay bët yu métti dong ndax man bu ma la waxee dëgg gisuma kenn ku ne ci sama ginnaaw ku may jàppale ko dul sama jëmm ji ndax du ma xale am naa ay doom yu mag du ma xale man euh, am naa ay doom yu mag ba pare euh, bi nga xamante ne que li ma njëkk a def mooy jaay suma terrain faju ci wéru jaay suma moto faju ci wéru ma commencé di jaay samay bagage oh. man maa moom sama alal gën a xam suma alal fan la féete ci man. Mm. bu ma demee ba di koy jaay pour faju taxul ma wér. Mm. kon affaire yi da dem bay bëgg romb ay affaire bët ak yooyu. Mm. ndax man sama bët yi ay myob dalu ma quoi. ba doon ni ko myob la rek takk weer yu seer taxul sama bët yi wér. weer yi ma takk nii def na presque un million te taxul. ma wér. Mm-hmm. du dëgg kon ay myob ak yooyu ñu doon wax yooyu yëpp amut. li am mooy feebaru bët laa yor boo xamante ni que faj lay laaj te maa ngi faju wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax. Mm-hmm. waaw euh, dégg nañu aussi tamit laataa ñu ñëw ci ñi ci dégg nañu aussi ñu ni euh, ki nga xamante ni moom moo di Soxna Aida yóbbu woon ci benn dëkku naar. non non Soxna Aida yóbbuwuma de. yóbbuwuloo Maroc waaw. ku baax la nag. Mm-hmm. def na ci lim jullit war a defal morom ma. Mm-hmm. déplacé woon na yow ñëw na aéroport. bëggoon cee jàpp ñu ne ko lépp mat na man mii di wax ak yow dem naa seeti ko yàlla moo dogal gisante wuñu mhm. dem naa ba këram suuru àjjuma laa fa tombeel dem fekk foofu nit ñi bari mhm. ki ma àndaloon tam amoon nañ yeneen ay rendiw mhm. euh, ñu affaire bi mujj yàqu mu joxaatuñ ñu rendiw waaye wax dëgg yàlla man maa demul euh, maa ngi ci profité sax nag parce que euh, man ba may dem sali sali laa doon sali laa demoon seeti kuñ naan Adja Kebe su ma xarit jàppale ma dégg na ni jaay na sama terrain rek mu may ma terrain Saly kooku kenn la ci man ku nekk Saly Adja Maimouna Kébé borom Saly terrain la yëkkati jox ma bëgg soxna Ayda lool ni ma Baye Fall ku ñëw nga fii nañ jàll see seeti soxna Ayda loolu mooy sababu ma dem seeti woon soxna Ayda ma ne ko wax nga dëgg de parce que man boo waxee lu war a nekk rek dama naa la wax nañ ko def mu ne ma nañ ko seeti ma ne ko moom ñoroon idée bi mu jënd sax ay sërica ak ay. ziar euh, ay ziaram. Mhm. keroog sax dafa may damay yéemu amoon na yéene la mu jënd lépp daanaka jege na ci ay jege na téeméeri junni pour ñu jox pour mu jox ko soxna Aida kooku laa àndaloon pour dem yàlla malheureusement nag gisuñu ko. loolu la yàlla dogal mais yóbbu bi kon da cee jàpp jàpp na ci de waaye yóbbu ma de wax dëgg yàlla. waaw moo gën a wóor ayca ah, yenn artistes yi doon wax euh, xëy na loo xamante ni euh, déggee nga ko déggin boo xamante ni demewul noonu artistes yi loo leen di wax. artistes yi doon wax ñi ci wax ñëpp seen yoon néew ci. yoonam néew ci. waaw yoonam nekkul ci man. juruma jënduma ginaaram nenuma du dëgg sequñu sax lu muy lu may amee sama problème man mu ciy dugal làmmiñam di ci wax respecté naa ko trop sama grand la mais yoonam nekku ci boo feebaree nag man taluma woon Père Zora du dëgg taluma ko woon parce que dama fee baroon na ci jafe-jafe gisoon naa beneen façon taxawaay bu dul ne fi naan Baye Fall daa waroon a def lii ak daa waroon a def lële. waaw nekku ci. mel ni ku may corriger man te man kenn jàngalu ma aar man moom formé wu ma moroomam formé wu ma teetewu ma moroomam teetewu ma man benn càppaaculi laa boo xamante ne que du kenn moom a jàngal théâtre lu ne ci man la. dégg nga leen bu baax li ma la wax parce bu ñu waree wax dëgg dañ koo war a wax parce que ñun artistes yu mag yi man ci artistes yu mag yi laa bokk du ma bu ndaw 30 ah. ans de carrière du ma xale aar def naa ci plus de 40 ans yaa ngi may dégg bu baax kenn jàngalu ma aar li na ci man yàlla moo ko def ci man bu bu nit ki amee problème jullit comme yow taalibe Sëñ Tuubaa comme yow da am beneen taxawaay boo ci taxawee di wax mais ay war naa def lii ak war wër tollutuñu woon foofu yoonam nekku ci du ma moroomam. am di waaw. bu amee lu muy wax na ko dem wax te nem ko seqal man sequñu lu muy taxawee di wax ak man du ma ko tontu nag parce que man du ma genre yooyu du ma tontu am di million parce que man du ma moroomam moom li muy wax maîtriser wu ko sax te man li may wax dama ko maîtriser dund ko samay bët am problème. mat jaay suma alal man amaa may wax kenn ma dimbali maa njëkkoon di dimbali sama bopp parce que man du ma yembar man luy seen Baay Faal bu ma séenee bu ma bu ku xam Baay Faal boo ma séenee xam ni Baay Faal la nga nee di dem du ma yambar damaa yor sama métier di liggéey yu ba samay doom di liggéey kon du ma yambar ci li may def dama ciy liggéey ay million ba tàyyi te kenn dimbaliwu ma ci ñiy cëpp-cëpp di mbel mbel di wax yëpp ku ma ci mas a jege dimbali naa la macha allah léegi fi ñu toll nii tembe sa digganteeg Soleil Levant loo ñu ciy wax.